mbokk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 say mbir ba mu leer nañ ak foo ci téléphone sa aajo fa benn jour lañ jékki-jékki rek ma toog ci rajo Walfadjri rek dégg na ñoom dañoo formé association beneen association boobu waxoo ko waxoo ko sax association des lutteurs professionnels xam nga boobu tuddoo ko. waaw ñoom Moustapha Guèye daal ñu formé moom ak Tyson ak Yékini ah, mook mook booba Tyson génn mm. mook Tyson ak Yékini déedéet déedéet Tyson la dégg nga ak Mohamed Ali ak Moustapha Guèye ak euh, ak quelques mbër daal ñooñu daal ñoo ñoo ñu ne nañu former association lutteur professionnel mm-hmm. ñoo Moustapha Guèye daal koy former bi ñu formé loolu daal ma cee génne man génne ma ca ba ma set boo bàyyi ma bëri sax de mm-hmm. ñu daal ma ca ba ñuy tudd tudd ma ci tudd ñu ma ca mm-hmm. daal ma cee génne tubaab ak tubaabu joor ci la bokkoon te ñu boole tubaabu joor may leen yéen ñu coow ci coow lu bari parce que forme association daal jël ñii bàyyi ñii loolu mënut a nekk ma dugg ci Walfadjri bi ne leen euh, ma xuloo ci sax keroog coow naa ci ak Moustapha sax ma nekk ko Moustapha man sa mag laa euh, cër bi ngay jox mbéy gee nga may jox boo mënta jox bu koppi da may jox bu ni toll dama ne soo ma yegee yëg naa la soo ma yëgul yëgu ma sax yaa ngi dox keroog li laa ko tontu ci wal fajiri bi. parce que wax dëgg moom boo koy teg ci télé boo nee di wax ci internet yi da ngay wax li am. da nga wax ni ma am na xëy na lu ñaaw yoo xam ne du ma ko génne mais am na ci la ci dama lay wax la am. ma ne ko man sa mag laa ñu daal ma ne ko yéen da ngeen a juum yéen su fekkee da ngeen dem ba former association des lutteurs professionnels da ngeen di te association ngi fi woon association des anciens lutteurs ngi fi kay dañuy def assemblée générale résoudre boobu daaneel boobu. daaneel boobu bu ngeen daanelee boobu nag former association des lutteurs professionnels ñi bokk bàyyi yu bëree bokkatuñ fa ñi bokk bëree ñi nga xam ne toll nañ ci bëri nag ñu dem bokk ci lutteur professionnel. loolu ngeen waroon def ñu xuloo ci xuloo bu métti ci Walfadjri jamono Ndiaye Doos yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana Ndiaye Doos keroog moo démissionné moo moo dirigé émission boobu ci Walfadjri ba 11h la daan ba midi. ñu coowoo ci coowoo ci coow après kat yi comme léegi ñoom formé nañ seen station boobu booba temps sel mu ngi leen di encore courage sel ak moo ak ñaa ñaa maa ngi nuyu ak ñaa ak ñoom tey sa nekk ci fël mbër gi ñëw dégg nga ànd ak Moussa Gueye nekk ci moom it fin de carrière jamono yooyu daje yooyu quoi ak ñoom moom daal di dese carrière tuuti ak tubaabu joor ñu daal dem kati ci la ma kati woo Amadou Kati Diop maa koy nuyu waxtu kati daal ne ma Birahim maa taal sama dem ba mu ne ma. dama bëggoon ñu waxtaan ma mu ne ma léegi dama bëggoon ñu former association des anciens lutteurs comme gars yi formé nañu as euh, euh, benn groupe tuddee ko association des les lutteurs professionnels léegi génn na ñi ci léegi nañ leen def leen nañ former association des anciens lutteurs rek ma jox ko loxo ne ko lii kat yow xalaat bi nga wax rafet na di yow ko loolu kay moo gën a yàlla mooy nañ former loolu. ma ne ko kon xam nga léegi comme lan la man Sonatel laay liggéey maa ngi jaaral boor bi ma jaar bi man maa ngi ci téléphone yi maa ngi oto léegi tubaarkàlla bu soobee yàlla yonent bi incha allah foo foo bëgg a ñu dem man maa ngi oto dégg nga daal di ci la ñu dem nag daal di moom it mu jaar fii dem seeti euh, ma magu yoof yi. ba ba kii ba bisimilah yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na dégg nga ak ñoom Baara Baara Baara Ndiaye déedéet kii euh, Baara Fall bu yaraax ñoom it ñu ngi may dégg mu ñoom Baara moom ak ak ñoom kii bari nañu mbër yarax yooyu yëpp ñi nga xam nekkoon nañu mbër ak ñi nga xam nekkoon nañu yoof ak ñi nekkoon mbaaw ñoom ab ba Ablaay Puy gaañu na ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm ak ñoom Thiaw deux ngi fi yàlla na yàlla fekk maam ak ñeneen bari nañu dégg nga mënu ma lim ñoom ñëpp daal ñoo ñëpp nag bi ñu dajee dégg nga li ma la ñu daal def assemblée générale bu xomb daal di wooy maam Gorgui Ndiaye daal di wooy euh, kii Mbaye Guèye Mbaye Guèye maa taal sama dem ba këram Faas fekk mu toog ci côté ma ne ko Mbaye dañuy former association des anciens lutteurs mu ne ma du ma bokk. ma ne ko mbay boo xoolee loolu wàcc nga sa loxo yow làmb dafa la dafa lay teral ba jeex. parce que loolu la yàlla may la. lamb da nga ci war a tedd ba si si si daal di ci tedd parce que koo kii sëtu mbéy gi laa sax ñu xoolaat la kon tey bu boo bàyyi rek bàyyi nga sa loxo. bokkal association yooyu bii du doon benn. yi fi daan ama ak bii du benn lii laa ko wax wallahi taala ak waxtu wi laa wax mu daal ne ma amul problème. may leen li ma ñu daal di jóge jóge fa maa seeti tubaabu joor maa seet tubaab bu jor euh, atelier mu wax ko lii maa seeti Mor Fadam maa ko jëli Mohamed Ali maa ko jëli dégg nga kii mii nu tëddi euh, waa ji euh, Sarr Njaga saar maa gis ne ko Njaga kaay bokk ci groupe bi ñun ñëpp maa leen jëli yor tamata fu nekk di daw di jëli di jëli ku nekk ñun ba ñu formé assemblée générale bi nag keroog mag yi mbër yi desewoon dund yëpp ñoo ngi fi si yàlla si ñoom ñu daal di formé benn groupe ñu daal di formé association des anciens lutteurs nag daal di fal maam góor gi Njaay président dégg nga li ma la daal di fal euh, secrétaire général Grand Ndiaga Samb bii gaañu bër ki démb. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla yokk leen. Mm-hmm. yoof la nekk moom ku yàgg ànd ak mbër la. Mm-hmm. Ndiaga Samb ñu daal koy force secrétaire général. parce que moom comme jàng na euh, euh, kii la woon nu mu tuddati woon enseignant la woon jàng na mën naa te ñun secrétaire général bi foog ñu ñam ko a bind te mbër yi ci bari mënuñoo bind ñu ne nañ ko def Ndiaga Sall. Ndiaga Sall Ndiaga Samb daal di koy def secrétaire général dégg nga ñu ne Birahim Ndiaye la trésorier bi. Hmm. maa de ñu ne non trésorier bi moom Birahim Ndiaye ko moom bi mu ko waxee bi yëpp tëj ñëpp tàcc yëpp Birahim lii moom a jotoo ci fek fekk avant loolu sax. kat yi dafa ne ma man de Birahim bu ñu sa tolloo damaa bëgg affaire trésorier nga yorol ma ko nga yor ko waaw parce que man grand yi ci boppam man daal du ma wax kenn dara waaye su ma sañoon daal bu ñu bëggee xaalis bi ñoom daal dañ ko teg sa loxo man daal laa bëgg. ma ne ko kat te ma bàyyi ma de man te may bàyyi rek may kii noonu ko bokk baal ma bokk ci organisation bi rek mu ne ma nooy yoral loolu am beneen mag boo xam ne bii bon mu nga ci biir bon man naa mënu tudd turam parce que bëgguma sax parce que dafa ne ma grand yi wóoruñu hmm. lii la ma wax waaye duma ma tudd turam grand yi wóoruñu yoral xaalis bi lii mu jox ba ñu demee tamit bi ñu ne seen trésorier rek ñëpp tàll seen loxo ñëpp tàcc hmm. ñu daal di fal maam góor gi mu yor ñuy doxal nag ñuy doxal di doxal di doxal di doxal di doxal affaire bi commencé dem ba ci biir nag <laughs> commencé gi seytaane ki commencé nag ñii di jaxas fii ak Riis Niang fàtte woon naa Riis Niang ngi ci biir ci membre fondateur yi la Boy Bambara ci Riis Niang membre femme membre fondateur yi la ndam si yàlla si dut ba kasaar ci membre membre fondateur yi la Amadou Kati Diop mii ci man ak man ak mbay euh, mbay gi samam raa la daan ñëw noonu quoi waaw mais Boy Bambara Riis man ak euh, Tubabu joor Kati ak Doudou Baka Sarr daawuñu manqué léegi nag ñoom euh, maam góor gi yaay suma ma comme man maa ci yoon oto su ma jógee su ma jógee fii sama damay téléphoné maam góor euh, kii téléphoné euh, ndam si yàlla si Doudou Baka Sarr gannaaw bu ñu amee réunion ma ne ko xaar ma sa kër maay taal sama oto dem këram jëli ko HLM jaar fa jël maam góor gi déposé la bu ñu réunion ba pare ma jaar déposé maam góor gi déposé kii déposé Doudou Baka Sarr door a ñibbisi pendant deux ans. ñu ci lañ jëli ñoom teex si tafa coor si tafa coor liñ njëkk a cotiseel mu ne jabaram dafa gaañ ñu cotisé ñetti junni keroog ñun man maay bu ñetti junni fii ci Grand Yoff fii yëkkati xaalis bi teg ci loxoom. dégg ñu daal dajale groupe bi commencé di dox ñu dem groupe bi di dox di dox ba mu yàgg rek mu xëcc rek ñu jékki-jékki ma ne leen léegi Manga 2 boo bàyyeegul Manga 2 bi mu bàyyee rek ma dem seeti ko. maa taal dem ba këram nii ma ñëw fekk mu toog ma ne ko yow laa soxla ma ne ko ma ne ko ah champion man de dañu former association des anciens lutteurs. Hmm. comme yow léegi bëritoo kay da ñëw bokk ñun. yee du ma bokk mukk man kay ma wax ni moom dina di leer hmm. mu ne ma du ci bokk du ma ci bokk ma ne ko maa nga bul waxati loolu. Hmm. champion bu toll ni yow ak li nga def ci làmb. carrière bu tol ni yow. nga naan te ñu former association des anciens lutteurs ñu ne da ngay bokk nga ne doo bokk loolu loolu loolu. loolu foo ko fekk ba ma ko jëkkee wax ca réunion ba ci ba siège social bi parce que ñu ngi ko defee cëriñ siège social bi jàkka cëriñ jàkka ji nekk euh, wetu kër Amadou Kati Diop ci rue set jàkkay sànc ba waaw jàkkay sànc ba foofu lañ ko defee parce que kii mboor alaaj kii Mbor gaañoo na ndeysaan moom it yàlla na ko yàlla yërëm moo ñu joxoon foofu ñu leen euh, siège Lebu yi la ne lu bëgg ci réunion dee leen ko defee fii ñëpp ko fekkee mu nga fa toogoon leneen daal ñëw ne nag léegi nag Euh, may leen damay seeti manga de mu ñëw bokk sa sa manga tamit mënuñu dem ko mënu dem bàyyi ñu. Mm-hmm. ñu daal di ma deet riis booy bambara kat yi ñoom ñama ah Birahim teen ko a dugal soo ko ci dugalee tamit ëllëg si biir da nga xam la ndax ri booy bamb kii ah, ah, du ba kasaat ci boppam. wallahi taala mu nga ci àllaaxira yàlla na ko yàlla du ma ko sosal parce que ci dugal mais mm-hmm. ko ci dugal di ko ma ne ko leen yéen li ngeen di wax ni fu ngeen koy waxee parce que boo champion bu toll ni Manga 2 ak carrière bi mu def ci làmb dem yow itam ku mel ni moom tey jii ne ne bokk ñu ne doo ko ñu bokk loolu loolu boobu bu ngeen ko waxee am gàcce loolu fu ñu ko nettalee gàcce la am na bàyyi leen ko mu bokk te ñu gérer ko nañ ko gérer rek ci laa ñëw daal di ñëw dem këram maa ngi toog jabaram treize mu ngi toog dina seetaan mbir mi bu ko seetaanee wala ko seetaan wax ko du ci dindi virgule ma ne ko maa nga dañuy former association des anciens lutteurs dama bëggoon nga ñëw bokk ci mu ne ma duma bokk. du ma ci bokk yow du ma ci bokk gars dañu may siis rek ma ne ko maa nga wax boobu mbéy gi ba ma ko xee loolu la ma wax mais bàyyil wax boobu. am loo cër boo xam ne bu la ko yàlla mayee ci biir làmb yàgg lu mu ma doon yàlla may la ko ci kenn mënu ci la caa saa siis kenn mënu la caa génne parce que da nga caa bokk parce que kenn mënu koo tudd te la waaw mu ne ma non te ma ne ko maa nga ma bokkal mu ne ma ñaata ngeen di cotiser ma ne ko 1000 francs par weer. la ñuy dajale parce que mbër yi feebar ñu di leen waaw loolu dinaa ci ñëw sax ma ne ko 1000 francs la ñuy cotiser par weer mu ne ah 1000 francs ma daal ah, mu ne ma daal yëkkati 12000 francs jox ma. 12000 francs kon muy un an. mu daal di cotiser un an. 12000 francs ma daal di ñëw bi ñëw ay reçu booba sama sa reçu yaa ngay man fii ba léegi mu ngi nii. benn reçu laa sànniwul benn këyit boo xam ne station yi ma benn këyit laa sànniwul yëpp ngi sama bi ko maam góor gi yor rek bi mu nemee ci bi mu nemee ci euh, màngaak ñëpp kayit yëpp ngeen man ñu dem ba ñëw andi mu commencé ñëw bokk ñu bokk di bokk bi mu bokkee nag ah affaire ba jaxasoo ba fa la commencé nag. kon mànga mujjee naa bokk. mais kon jaxasoo bi mujjee naa. waaw ba mu ñëwee ba mànga ñëwee ba bokk nag ba dugal ci biir commencé doxal ah ci la jaxasoo ba commencé nag. mbaa jaxasoo bi jógewul ci moom. ah fu muy jógee moom mooy njiit. moom mooy njiit ñii dañoo ànd ak moom fii léegi nag gis nga ñi nga xam ne ñi ñoo fal ñoo àndoon ak maam góor gi ñoo koy jàmbu maam góor gi maam góor gi tam joué wul la jeu moom it nañu waxante dëgg joué wul la jeu que mbir bu ñu la ko joxalee da koy jéem doxal da koy joxal dama doxal ci dëgg teg ko ci yoon wut intérêt groupe bi mais bu fekkee dañ laa jox nga dox sa intérêt bopp te doxoo intérêt groupe bi ah bu bëggee groupe bi dañ lay teggi teg de côté te doxul woon intérêt déglu yëpp ko fekkee woon ko dañu xam ne li mu wax dëgg la ñu daal di ñëw ne léegi groupe bi dox doxatul noonu léegi ñoom ñoo jaar ci suuf ñoom dul Bakka Sarr ba Risnia ak Bambaar ñoom ñëpp daal di ñëw jéet folli maam góor gi ñu def assemblée générale ñu daal di fal Manga 2 ba ñu koy fal Manga 2 keroog koy fal man naa ci parce que li tax ma d' accordoon ci parce que maam maam góor gi Ndiaye maa koy nuyu de passage yàlla na yàlla yokk wéram maam góor gi Ndiaye nekkul woon joué wul woon le jeu parce que la waroon ca njiit ma defu ko. parce que foo ñu waroon doxal fu ñu waroon dem lijjanti boppam lay lijjanti lu mu ci war def lépp mën na su wax ci panel mën na su wax parce dina gudd na tàng boo ne da dem la nga mën a wax rek ngay wax la nga mën ta wax da koy tëb waaye moom bu la dégloo di nga xam ne fi nga waroon ñu daal di fay jógee yor mbool mi muy dox muy dox muy dox dégg nga ma dem maa nga de commencé bureau këram lañ toog maak moom bureau bii mu fal président bi avant ñuy def assemblée générale bureau bi këram lañ ko tege maak moom keroog fa laa ak ku ñu wax euh, ak kii euh, Jacques Diène. Mm-hmm. Jacques Diène a ngi toog Jacques Diène doon bind. Mm-hmm. maa nga président euh, Ibrahima Ndiaye trésorier dégg nga secrétaire général ak kan nañ ko defoon secrétaire général ku ñu ko defoon waay am na xam kan kan lañ defoon secrétaire dans tubaab bu jor secrétaire général. Mm-hmm. waaw dégg nga teg nii noonu lañ ko def bureau bi teg dir bureau bi nga xam ne bi léegi pour bu ñu demee assemblée générale léegi dañuy dëkk liir bu ñu liiree rek daal ne ah, assemblée générale bi mu teel daal léegi nag nii lañ ko bëgg a doxalee bu fekkee arrange d' accord ngeen ci leen bu fekkee d' accord leen ci nag ah ñu ñu falaat bureau hmm. bi ñu demee bureau boobu la ñu yóbbu rek Djib Diouf mii di Djib Diouf mu may dégg hmm. bu wasaar Djib juuf mii mooy sama euh, kii mooy sama secrétaire mooy commissaire au compte bi hmm. ci këyit yooyu récépissé bi noonu la demee ñu top fekk se bi la euh, la ñu taxawal dégg nga bureau boobu la ñu taxawal noonu maa nga président ma Ibrahima Ndiaye trésorier secrétaire général daal euh, tubaabu jor noonu la groupe boobu doxee di dox di dox dox ba commencé dégg ba commencé nag jóge ci nag dégg nga ay mag yoo xam ne ñoo nekkoon ci groupe bële commencé jaxase fee jaxase diggante tubaabu jor ak mànga nag. Hmm. Eh, kataa yi ne nii suñu jaaree suñu jaaree fii ñu jaaree ci tubaabu jor ci mànga tey bu ñu fa jógee rek mànga woo de ma ah, sa gars yi léegi lañ jóge de. ma ne ko duñ jaar ci man de. ma ne ko duñ fi jaar kër maa ngaa ngi nii sama ginnaaw waaye duñ fi jaar de. ana mu jëm tam ca tubaabu joor bu ñu demee ca tubaabu joor wax jóge fa jàpp da nii di bàyyi di jax jaxase rek jël jël essence tëgg ci pétrole rek jël essence tëgg ci pétrole ba kuy kaw comme ci ne nii kenn dootu laal moromam. tas groupe bi nii la tasoo nii la groupe bi mujjee tas. léegi nag groupe boobu foofu la ci gàttal daal loolu am na xëy na am na yu ci fàtte mais yi ma ci fàttewul bëriwul parce que bi but bi nga xam ne bii noonu loolu la groupe bi taxoon wax naa la ko la tas groupe bi tamit gis naa la mag ñi ko tas am na ñii dee nañu ñenn ñaa ngi fi. père ginnaaw loolu yëpp après e, coow li ñuy dem ci per Manga wax ñu ñëw ci e, père Toubabou joor wax léegi yéen après ban ban ngeen ci dox pour sauver association balaa muy muy muy muy tas. association bi booba mënatuñ ko sauver. parce que ñi ñu àndaloon doon xeex ñoo def taf tafuwaat ca Manga 2 ñoo ñu bokkal ànd ñun ñëpp ñoo mujj def tafu ñëpp ci Manga 2 ñëpp mujj ànd ak Manga. waaw booba euh, manigance bi dox na bon euh, stratégie bi mu def def na stratégie boo xam ne ba gaa yëpp ñëw ànd ak moom. gaa yëpp ànd ak moom bi ñu gaa yi ànd ñu bëri ànd moom man maa ca bokkul Amadou Kati bokk ca Tubaabu Joor bokku ca euh, Mor Faram dan si yàlla si bokku ca dégg nga ak ñenn ñoom groupe. ñu ne léegi fekk na booba la indi coow la nag fekk ñun dañ ne léegi comme ñun mbër yi léegi ñun ay ay ay école de la ñu yor léegi nañu bind doo ànd ak manager yi fu ubbi benn groupe nañ nañu ànd ak manager yi bokk euh, làmb yi quoi. parce que ñun comme ñun ñoo doon bëree te ñun bëri te ku bi nga bàyyee bëri tooguloo yaa ubbi nga école de lutte ancien lutteurs yëpp am nañu école de lutte kon léegi nañu fexe ba ñun tamit ñu doon di ànd ak ñoom ñu doon di manager wala bokk. Euh, wala wala wala boog ñun ñun ñooy tànn manager bi nekk ci groupe bi foofu laa la wax ne dëgg da koy feeñ loolu ñu doon xeex def tey ñëw na. ah ak ñi leen doon dimbali. Alioune di leen jàppale. dégg nga li ma la wax waa fi nekkoon di leen jàppale di leen dooleel. parce que Manga Deux ci ñoom la bokkoon. dégg nga waa ñoom ñoom baabu ñoom ñëpp gars yi ànd ak moom. ñu ànd ak kii pour ñu xeex ne ñun duñ fi doon manager. Mhm. ñu ne léegi dañ leen former association group boobu ñëpp nag daal daw ñoom Riis ñaar ñoom Boy Bambara ñoom doom si yàlla si Balla Gaye ñëpp ñëw ak Double Less ak ñëpp ñëw ba mu des kenn moo ñëwul ci groupe bi. keroog ba ñuy formé lool benn nit moo ñëwul muy Manga 2 te Manga 2 man maa ko ne maa daje moom booru stade ma ne ko dañuy def assemblée générale ko mu ne waaw waaye man euh, dimanche ma sam ma ne ko sam dañuy def mu ne ma pak dama ngeen da ngeen bàyyi ba may def sama pak ngeen di woote assemblée ma ne ko déet samedi du pak de dimanche mooy pak. xaw ma lundi mooy Pâques. Mm. léegi yow soo mënee ñëw da nga ñëw waaye yow mënoo fa ñàkk da ngay fa am nooy soo amee ngant tàn tànnal kenn sa nit mu teewal la fa. Mm-hmm. su soo ko defee war na ne ñëw nga mais soo ko deful dafay mel ni kon yow yow sa bopp àndoo ak ñun. Mm-hmm. ñëwul yónneewul ñu def suñu assemblée générale daal di fal suñu bureau foofu nag ci lañu ñu fal euh, Babou Dior président bi. Mm-hmm. Mbaye secretaire secrétaire général man trésorier. ñun ñëpp ñu ànd. ak organisation ñu jox ko RIS. dégg boobu yëpp daal maa nga daal desatu fa kenn. ñëpp ñëw ci affaire parce que booba dañu ne ñun nañu rey nañu fexe ba école de lutte kenn ku ne sa école de lutte yaay tànn manager bi nga doon loolu yën na ñu ne manager yi tam ne loolu du fi am yi nag jamono yooyu nag ñëpp ànd ak ñoom nag. booba taa ñiy tëgg làmb ñan la dégg nga Serigne Modou Niang ki fi gënoon siiw mooy Gaston Mbengue dégg nga ak ñan bari nañu daal. ñu doon tëgg làmb yëpp ne ñoom koo wax mu ne man du du ma bëriloo euh, mbëri démb ñu ne ku bokk ci ñoom doo ànd ak ñoom ñoom baabu bëri su baabu yi daal di farak gaa yi daal ànd ñu tam si la si la ñu def alaaj euh, tubaabu joor ndam si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm si la tubaabu joor daal di jóge seet ne nañ seet alaaj Ndiaye parce que alaaj Ndiaye xaritam la ñoo patron bi ko jàngal métier euh, sër bu mbokkal ndey ak baay moo mooy mooy jabaru mooy mooy sëru alaaj Ndiaye mm-hmm. jabar jabaru patron ban El Hadj Ndiaye ngay wax El bu 2STV bi. Mhm. daal di ñëw ñu daal dem nañ dem seet ko keroog ba ñuy ñu ñun ñëpp dem. Mhm. Duba Leesa nga fa maanga nga fa Boy nga fa Riisa nga fa Balla Gaye nga fa dégg nga li ma la wax euh, bari nañu benn nit boo fa ñëwul woon ku fa bokkul woon muy Manga 2. Mhm. keroog moom it ñëwul. waaw parce que d'accord woon a ñun. léegi bi mu demee toog ñu ne léegi dañ leen ah léegi station bëri dem manager gi nii de. taxaw na am nañ suñu récépissé am nañ suñu yëpp léegi ris ñaa moo tab moo toppatoo récépissé bi yëpp moo ko toppatoo yëpp ba mu génn sax bi ñu paree foofu au lieu ñu euh, bi ñu seede Alaaji Ndiaye Alaaji Ndiaye ni léegi man comme yéen gars yi dañuy xeex léegi man def leen bàyyi leen yéen ah, jënd leen licence. Mm-hmm. man dinaa leen financé pour ngeen di tëgg ay làmb. Mm-hmm. waaye nag lenn laa leen di wax kayit a ngi nii remplir mais bu leen wor nag. Mm-hmm. kew bi mu waxee bu leen wor fi ma toog sama yaram dafa daw. li tax mu ndaw mooy damaa xam ne dafa ñu dóor dafa ñu dóor bal boo xam ne fi mu ñu ko door sax xamu ko mm-hmm. parce que xam naa ne ñi ma am ak kuru bu mbër mm-hmm. li ci ëpp li ay warkat lañu. Mm-hmm. ñu daal toog ma tekk ma daal jël parole na leen man de El Hadj Ndiaye mi dafa wax benn wax boo xam ne daw na sama yaram mu ne ma ne ko na ngeen bàyyi xel ci li mu ñu wax waaw nee na bu leen wor bàyyi leen xel ci li mu wax nee na bu leen wor bu leen wor jooju nag affaire bu garaaw a garaaw a ci nag waaw ma ne dinaa leen jàppale mais bu leen wor daal di ku nekk bind turam ñëpp bind seen tur. ñu dem muy dem mu yëkkati 16 millions jox ñu. 8 millions lañ jëkk a jox ñu joxe avance. ñu avancé a reliquat yi di 8 millions. moo tax mbëri deuxième combat yi sax 1 million lañ leen fay. mbëri deuxième combat yoo xam ne mosuñoo bëri sax mosuñu ñenn ñi mosuñoo bëri ñeneen sax seen deuxième combat sax 1 lañ leen fay. booba xeex la woon. Mhm. ba ñu demee tëgg nañu fi làmb benn làmb keroog làmb boobu ba bi ñu ko tëggee ba pare suñu recette yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. ñu ngi am euh, lan onze mille ñaata la ñu am euh, onze millions cinq cent la ñu am. Mm-hmm. dépassé seize millions et quelque am onze millions xaw ma lan la ñu am la ñu am. Eh, perte bu métti kay dikkal lañu parce que booba xeex bi métti na. Mm-hmm. boobu ménage yi yëpp ànd ak promoteur yi nga xam ne tëgg làmb xeex ñu. Mm-hmm. dégg te booy yi nga xam ne koo ci wax mu ne du ma bëri parce que ménage yi naa nga ñu xeex muy indi bataay bu metti waa CNG ànd ak ñoom waa Manga 2 ànd ak ñoom dégg nga ñoom baabu sur baabu gars yëpp ànd ak ñoom la di ñu xeex man ba dem na ba sama sama écrit fii laa toog ne gars yi xale yi dem naa ma woy père Birahim ko ànd ak moom doo bëree ndangam ndangam ay gars yoo xam ne ñu ngi may xeex tey ji euh, ñu ngi ta am nañ place ci laa ba ji nii maa leen doon xeexal pour ñu jël leen ay mbër du ma tudd seen tur ah waaw mais ñoom xam nañu man xam naa bu ñu seetaan dañu xam ne man taxawal naa kaasal leen ba tey ñu doon di menacer tey ay menacer mm-hmm. la wax ñu dem di dem di dem di dem di dem ba affaire ba ñu tëgg làmb ji làmb ji passé Alaaji Njaay moo ñu waroon moo ñu couvrir woon quoi. Mm. mais ñu dem ba ci biir la mu waxoon yëpp am salaamaaleykum kan moo jëkk a génn Balla Gaye moo jëkk a génn. Mm-hmm. dem ci làmb ji man ànduma yéen Alioune taxaw wax ci rajo bi ne man it ànduma ak si mm-hmm. defee maa ngi koy dégg kay. Mm-hmm. Xaadim Samba ko mu ne ànduma ak mbër yi. dégg nga li ma la ba ma jóge ca moom it trahir. gaa yi di rocc ko di rocc ko di rocc ko di rocc ba xam kan moo ci mujj des maak tubaabu jor sël maak tubaabu jor sël des ci groupe bi ak kat yi dégg nga waaw ak kat ak moor Faram ñoo ne ñoo ci des ci mbër ñi des ñëpp dem nañu. waaw parce que influencé nañ leen ne leen seeni booy bu ngeen bokkul ci groupe bu ngeen bokkee ci mbëri démb mujj gi ñu ne ku bokk ci mbëri démb du ñu bëriloo sa mbër. kon ñoom est-ce que du du dañu jàpp ni bu ñu bokkee ci mbaru demb yi seeni xale yi topp seen ginnaaw du ñu bëre moo tax ñu bàyyi. waaw loolu la ñàkk gëm yàlla ñëw nga foofu nag ñàkk gëm yàlla foofu man année bi nga xam bii dañ ne ma sama mbër du ñu bëre damaa booy fii fees dal ñu toog may leen ah man de maa ne ci dëgg sama école bëri naa ba bàyyi bëri formé sama mbooloo yor sama école de lutte hmm. samay booy di bëri man dama ne ku ma ci gëm yàlla toogal ku gëmul yàlla yeewi naa la hmm. ñu bëri am na ñu bëri rocc ko woon dem waaye ñoo ñëpp bëriwuñu ba del soir dañ ci man fii billi nga jëkk génn daal ne man damay dem ma Pikine parce que bëri moom arrangé naa nga ma ne koon yeewi naa la mm-hmm. yeewi benn problème waaye Pikine googu la ca dawewaat waat fii taabaan mu ngi xam ne xëy na mu déglu émission mm-hmm. moo ko ndiwaat fii mm-hmm. dégg nga Birahim bi nga xam ne man lañ ko tuddee maa ngénte maa maa ba may waaye am na yoo xam ne ma ne su ko wax ci kii maa maa ko ngénte daal ci gàttal kele ba ma waree bëri Tidiane Faye combat combat boobu dégg nga ba ñu ne ma man leen maay ah, ku nekk sama kii maa lay engagé. Mhm. Pape Lo dem si dama woo ne ma woy dama bëggoon nga bàyyi ma ne ko Pape yow da nga yori fas ma ne ko sa groupe bële sa fas yooyu nga yor yoon ña ña koy ra ña koy taat ah, maanaam bu waree bu ñu waree daw. course yow du yaay financé di yaay dundal fas yaay fay ko def voilà ko kon ah, keneen mën naa jóge fële nangu fas yi di la ko di la ko di ko utiliser yow nga toog. mu ne ma déedéet ma ne ko lu tax nga sama école du ma ma yor ba pare samay mbër kenn di ma ko engagé du ma ko def mu Birahim mujj gi dafa mujj ànd ñoom Birahim Nguer mii papaam sama moor ngeen xam ne sama diggante ak moom nga li ma la waaye mujj gi am na yenn yoo xam ne ñàkk gëm yàlla la te parce que lañ doon xeex lépp mujj na toj mujj na tasaaroo parce que boobu ñi xeex dafa bari même am na benn sponsor bu ñuy wax kii Star moom moo ñu nag C2C moom moo waroon ñu jox ko quarante et quelques yoo xam ne sponsorisé ko ci mbëri dem pour mélanger. dañoo toog man maa ngi toog mbay Guèye ngi toog Sow Faye ngi toog Jib juuf a ngi toog Tubaabu Joor a ngi toog ah, ak uh, kii Birane Guèye ngi toog bari woon nañu diis sëñ woon. ñu waroon jox kenn ku nekk benn taxi. Mm-hmm. dégg nga li ma mais gis nga loolu borom taxi ci boppam moo ñu ne yéen lan moo leen booleeg Alioune Sarr ñu ne ko ci lan mu ne lan moo nekk seen diggante daal Sarr ñu ne ko dara. moo ñuy def ñun ñëpp de moo yor làmb ji mu daal ne mais moom toujours dama wax ne lu tax ngay jaar ngay jaar ci petite porte yi waaye grande porte. Mm-hmm. ma mooy lan a ah, mooy lu tax mooy organiser ak yéen ti bàyyi bàyyi fi mel ni Gaston Mbengue. Mm-hmm. ma ne loolu wax bu moo tax wax naa ko ñu demee réunion fële ak moom mm-hmm. laa ma ne ko Alioune ñuy xeex waaye doo ci am ndam parce que ñi nga ñuy jàppale amuñu nekkuñu ci dëgg. nit bu nekkul ci dëgg boo ko dee dimbali da ngay daanu. la nga ko mën a dimbalee rek mooy génne ko ci fen wi waaye bu aw fen boo ko ci encouragé dangay ngay moom te ñun mënuñu ci ñun dara mais affaire boobu metti lool mu jigi làmb ji moom kay képp ku gëmul yàlla dara ma ne tubaab dañ jàpp fi ñu jàpp rek. waaw dañ jàpp fi ñu jàpp rek waaye mujj gi maam moom rek a ci des. maam moom rekk ci mujj rek ba groupe ba gis nga ko mujj na bon tubaab jor gën naa dina xam nga rek mujj gi affaire groupe bi demetul noonu dégg nga waaye ñoom it dañoo mujj jox accord. dégg nga parce que dañoo mujj tàllal loxo xam ne ñun tamit ñëpp ngi ci doon dox jàmm ñu woo ñu kër Manga 2 ñun man mi demoon naa ci Manga 2 aja ba toog nii en nii ñëpp toog parce que gaboo yu bëri tey jii ñoom dañu dañ leen mujjoon recruter parce que Manga euh, dafa am bu muy doxal boo xam ne su ko doxalee pour pour pour gagner ko ci loolu day jafe mm-hmm. waaye nag dëgg yàgg-yàgg dëgg euh, ah, dëgg mooy moo fi angaaru fer wenn fépp dëgg ci dugg tas ko mm-hmm. parce que ñëmu doo këru xeex di leen jàppale ñëpp ñëw ci wetam ñoo ñëpp tey mujj nañ ko découvrir ba tax moo tax fii ne pour mu dajalaati mbooloo jafe na pour mu dajalaati mbooloom làmb lu jafe jafe jafe la parce que am na ci ñoo xam ne ñi nag li ñuy wax kanamam duñ ko wax ci ginnaawam am na ci loo xam ne lii dañ koy wax ci kanamam mais am ñu ko wax ci kanamam ginnaawam lañ koy wax.